di leen xamal nii. ñu déglu waay ñu déglu maa jàpp ni Colobane Guy Mouride. lépp lu fi waay di def. collectif pour le développement local de Colobane Guy Mouride nga koy defal parce que ñoom la war. sage yi nga xam ne ni ñoom laa ànd muy ay kilifa toogaay metti lool depuis trois heures parce que ñoom dañu respecté heure ñu nekkoon fi ñu ngi leen di sant leen gërëm di leen jégalu sant jigéen ñi nga xam ne ni ñoom aussi ñoo àndoon ci délégation bi très sant nañ leen gërëm nañ leen nga xam ne ni dañu bëggoon indi seen marque comme quoi que Colobane Gouye Mouride ñor na leen bu ñu paree ne collectif bi dara dañuy jug ñooñu ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaye dama bëgg Assane Baldé ginde génne liste bi ku nekk bëgg naa gis tuuram ak 1000 francs yéen ñi ñu àndal yëpp kilifa yëpp ci Colobane Guy Mouride initiative bi Pape Dieng jox maanaam collectif bi jël na benn classe mu leer nit ñi ni bu ko kenn deful woon Pape Konaté mën na ko def mais Colobane Guy Mouride ñoo bokk Colobane Guy Mouride li ñu mooy tey dañ koy initier dugal ko en communication fépp ci Colobane koy mën ñu gis ko ne chaque personne 1000 francs pour l'école Colobane 1 te dinañ ko initier di ci dox di ci wax ba nga xam ne ni Gorgui Sow mi en tant que président moom nga xam ne ni responsabilité moom la incombé gis nga bu ñëpp doole góor ñëwal di seet ko maa ngi yow nga ci bëgg day am incha parce que lii mooy initiative yu nit ñi soxla man am xalaat bi xëy ñu ngi woon ci yeneen école école yi nañ muy am mu jóg ak ñi mu àndal ñuy am xalaat ne nañ leen jóg dem dugal suñu loxo maanaam euh, euh, remercier en même temps kilifa yi nga xam ni ñoom ñoo fi nekkoon parce que li ngeen doon def tànk ki ngeen doon defal ay rongo ngi man tam sama rongo ngi doon ndax ci école. ndax li ngeen doon def dafa am sens de trop mooy fàttewuñu li nit ñi doon def ci ñun c'était extraordinaire donc góor école bi xool leen bi ngeen di jox collectif bi ngeen jox ko on prend l'engagement tey kat ni dañ si ànd ak yéen fas yéene wuñ ko yemale foofu dañuy fexe gunge leen ba ngeen xam ne ni ba mbir mi egg comme ça buñ fi ñëwaatee daaw déwén wala ñu ñëwaat bi ouverture duñ ne ñii li ñu waxoon defoon parce dañu amoon A bi mais liñ doon wax A ba Z def nañ ko jàppaleen ni ni maanaam engagement wu collectif pour le développement local Colobane Gouye Mouride mu ngi ak yéen alors remercier mes amis Abdou Khad yóbbu naa 1000 francs Sega Ndoye mon ami mon frère yóbbu ñi ma yóbbu seen ñaar téeméer ah. mais pourquoi waa Ndoye Mouride la c'est important mais monsieur le maire s'il vous ñu tàccu monsieur le maire. alors ñu tàccu monsieur le maire parce que dafa dëkkoon koo waa Ndoye Mouride yàlla mooy def li gën yàlla la soob moom indi fi keneen mais saa yu Colobane Ndoye Mouride jooyee waan dara bu tegoo bi da ci ndaw di ci wax. te ci mujjul école bi toilette yi bi mujjee am moom mujjul may dafa moom moo ko def ci ay pexe boppam ak ay moyen boppam mu santul nit nag doo sant doo sant suñu borom maa ngi lay sant di la gërëm di tudd Colobane Diouf alors leneen li nga xam ne ni naa ko dolli mu am solo lool ci li

Colobane Guy Mouride 17 quartier la waaye Colobane Guy Mouride benn quartier la woon benn quartier boobu ñu doon wax Guy Mouride kii njëkk nekk délégué de quartier bi chef de quartier mu ngi tuddoon Baye di lay toog ñu ne ñun de am nañ xalaat dem waxtaan ak autorité yi pour ñaan école bi ñu tuddee ko Baye di lay ñun ñu dem en comme lu askan bi teg suñu nopp ñu dañ koy yóbbu fi ñu war a yóbboo amaana mën nañ leen bañ a déglu yéen jàpp ne ni am amical la mais ñun collectif bi représenté Colobane Goumba bu ñu yóbboo suñu soxla dañ ñuy dégg ñu jël soxla boobu def ko suñu soxla def ko ci point yi doon négocier ak maire. bi ñu demee ak monsieur le maire ñu ne ko askanu Colobane Goumba ñoo am yéene delloo ñu ko le premier délégué de quartier de Gourmoulou.

ne nga taxawuñu foofu de ay tuddee naa école bi bàyyi nga ay kese pour ñëwuñu ne ko na indi participation ba ñu gis ni di bi li askan gi di def moom la koy defal c'est important une participation du maire par rapport ak initiative bi nit ñi am askan gi loolu moom c'est moi qui va le demander solennellement damay ci loo xam ne ni dafa am importance pour man euh, docteur xaw ma kan moo yor sa communication mais boo dematee ci kuréel ñuy wax naan ay consultant international bañal ba tëj fii mais je le président d'un parti qui se nomme Awalé. que tey jii bu ñuy wax fierté ñuy wax lépp ci Colobane muy murid moom mii nii tey mu jàngee ci école bii man waxuma si législative bi fi may wax mooy présidentielle. bu am xalaat nit ñi dama bëgg a doon jiitum réewu Sénégal te mu doon Colobane bi muy jàngee ci école bii kon su ma doonee di ngeen gën a am fierté ñoo taxaw ñu def fekk ñoom. alors avant ñun ñi waroon a di présenté bu ñu xeex ci ñu bëgg ñu ñuy présenté comme le président du parti Awalé te nañ ni nii ku nekk dafa war a doon projet woon pour que ñu am doomu élève bu Colobane 1 mu doon le président de la République du Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatullah